Ndeysaan Ndeysaan Ndeysaan Mbagnick Kaïré ak Boy Niang Maguette Seck arbitre soufflé na ñu ngi lewtoo Mbagnick Kaïré ak Boy Niang Mbagnick Kaïré ak Boy Niang arbitre soufflé na grand combat Gora Ndoye wooñu samedi le 13 juillet 2024 septième mois de le juin juin juin à Safourla samedi 13 juin 13 2024 ndeysaan 13 juillet 2024 ndeysaan 13 juillet 2024 arbitre ngi wax ak ñoom xoolal ñaari mbëri ndeysaan ñu ngi lew too Mbagnick Kaïré Mbagnick Kairé ak Maguette Seck Maguette Seck ak Mbagnick Kairé songu amagul xeexee gu ñu lew toowu ñu dooro gu ñu xeexee gu ñu songoowu gu ñu Mbagnick Kairé ak Maguette Seck ndeysaan na doon na xale beeg na laay la laa na ko jàpp na ko jàpp na ko Mbagnick jàpp na Mbagnick jàpp na Mbagnick Mbagnick Mbagnick jàpp na tànk bi Mbagnick jàpp na tànk bi Maguette Seck bëre kat la jàpp na tànk bi jàpp na tànk bi wala Mbagnick Mbagnick jàpp na tànk bi Mbagnick jàpp na tànk bi Mbagnick jàpp na tànk bi lu mu nar lu mu nar lu mu nar ay la la la génn na sa Maguette Seck bëre kat la Mbagnick jàpp na tànk Maguette Seck génn si Maguette Seck bërëkat la dégg nga ñoxo dégg nga ñoxo Maguette Seck jàpp na Maguette Seck jàpp na Mbagnick Kaïré amoon na lu baax Mbagnick Kaïré fu mu jàppoon baax na mais Maguette Seck mu ngi koy dajale mu ngi koy dajale mu ngi koy dajale mu ngi koy dajale mu ngi koy dajale koy dajale Mbagnick Kaïré Mbagnick Kaïré ñu ngi koy Mbagnick Kaïré fu mu toll nii jàpp na ngembu fu mu toll nii Mbagnick jàpp na fu mu toll nii Mbagnick jàpp na Maguette Seck jàpp na Mbagnick jàpp na mais Maguette Seck gàcce gaalaama Maguette Seck jàpp na gàcce gaalaama fu nga xale bi yegg mu gëm si ndaaraan la. Maguette Seck liggéey na ndeysaan ndeysaan ndeysaan laa ilaaha illallah Maguette Seck daan na ko de daan na ko de Maguette Seck daan na ko de na fees wala tegul fees teg na fees wala tegul fees teg na fees wala tegul fees arbi lu wax ak lu wax mais mais mais mais jël am na de ah mais su ma juumul jël am na de su ma juumul su jël am na de su ma jël am na de dem na heure de moo ma jël ba amul looy suuf de. waaye action bi ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan jàppaan na xale bi jàpp na xale bi jàpp na jàpp na lu mu ko nar lu mu nar laa ilaaha illallaah kan la naroon moom Maguette Seck ndeysaan Mbagnick Kaïré ndeysaan Mbagnick Kaïré ak Maguette Seck Boy Niang Mbagnick Kaïré Mbagnick Kaïré ak Maguette Seck Boy Niang jàppante nañu Mbagnick jàpp na Mbagnick jàpp na Maguette Seck jàpp na Mbagnick jàpp na Maguette Seck jàpp na jàpp na Maguette Sèye jàpp na ndeysaan Mbagnick jàpp na Maguette Sèye jàpp na mu ngi koy dajale mu ngi koy dajale mu ngi koy dajale mu ngi koy dajale laa ilaaha liggéey na liggéey liggéey nañu liggéey nañu mais Mbagnick loxoy waru ko mën a génne foofu ndeysaan Mbagnick Kaïré ndeysaan Mbagnick Kaïré door na xoo mu génn ba bopp bi Mbagnick Kaïré ndeysaan Mbagnick Kaïré ndeysaan Mbagnick Kaïré ndeysaan Mbagnick Kaïré door na door na xoo mais combat bi neex na mais combat bi neex na loo si mën a dégg bi neex na ndeysaan mais mais Magic lu muy may Maguette Sèye di ko fay yegg dafa ëpp daan na ko daan na ko daan na ko daan na na ko Maguette na Magic daan na kayre Kaïré Maguette Seck daan na Mbagnick Kaïré Maguette Seck daan na Mbagnick Kaïré laa ilaaha illallah daan na Mbagnick Kaïré daan na xoo daan na xoo ndeysaan xale bi ndaysaan da nga bëre la woon sonn mu daan ko da nga bëre la woon mu daan ko da nga bëre mu daan ko Thank you.